junj na ko nee na ñeent ñooy aju ci moom ñaar ñi rek laa fi wax ki jaamu yàlla di ko liggéeyal jox ko akam ah, akam sa kem kàttanam kooku mucc na tey ëllëg ki koy liggéeyal te nangu la jaamu yàlla kooku kooku mucc na ëllëg waaye nag moom boroom rek boroom rek mooy dundam mooy dund tey mooy dund ëllëg ëllëgam li boroom bëgg rek la bëgg moo tax njot ga foofa la ko jëme fii moom ku nekkul di jaamu yàlla di ko liggéeyal di ko liggéeyal te jaamoo yàlla duñu ne am am am faaw nga am xisaab xisaab kenn bëgg ko ci noonu nanu teggi waaye nag ah dañuy góorgóorlu bu ñu góorgóorlu rek ñu dimbali nu bu ñu góorgóorlu ñu dimbali ñaari wàll yooyu ma leen wax bu ñu xoolee gaa yu jëkk yi xool gaa yi mujj yi buñ ko xamee euh, jug fas yéene taxaw seen taxawaaye dana nu yomb lool ndax sëñ bi fàggul nanu waajal nanu la ci des mooy jëf rek nag loolu <laughs> daanaka tënk mën nañ ko tënk foofu rek ndax mën na fee fanaan te du xaaj du du nu xamee kon noonu kon bokki taalibe yi njabootu Sëñ Tuubaa gi nga xam ne yéen yéen a féetewoo Matlabul Fawzayni bul Fawzayni song mi ngeen song liggéey Sëñ Tuubaa mu dëggu ci yéen ba ngeen agsi fii ngeen agsi bët mën cee tegu bët mën cee tegu bi gis bas basira gisub xool mën koo gis mën ko yëg muy seen liggéey bii li ngeen weesu loolu kon am ngeen ndam na ma ko waxoon ci keroog fan ci fan yee ku ci bokk rek am na ndam te seen ndamal taalibe yépp la la ci am solo rek moo di ba ngeen di jóg na ngeen sóoboo waxtu ne na yees ci yéen peq gën a fedd di laxasaay yi gën a wéral jaayante gi bu ko defee ndam lu ngeen am ci lu ngeen lu ngeen am weesu ko lu ko ëpp fuuf ngeen di am li ci kanam kon na ngeen lu bu baax kenn ku ne na xool boppam fam ca la woon kenn ku ne ci yen waaw ta mbooloom sëriñ Tuubaa la mbool di di taalibe sëriñ Tuubaa di njabootam kenn ku ne ci yéen te bokkoon ci liggéey ba na xool na fàttali boppam fam fa jaar fam jaaroon na ñaaj rek wéy te xam ne daañ ko gàttam daañ ko dimbale daañ ko nangul ab liggéeyam ngeen góorgóorlu bu baax loolu sama waxtaan ak yéen la ndax sama maa kenn ci yéen nekk laa di seen mbokkum bi di ci amoon solo sëñ Moussa wax na ko kon waxtaanu taalibe ak bokki taalibeem rek ci des li waral jataay bi itam jëkkoon na ma dem ci kër ga defe naa amoon na fa jataay waaye bi ñuy bëgg a julli di tàggul si sa bëgg di ko di war a julli ji njaareem la ma laaj kër ga fu ñu ci toll fu ngeen toll ci liggéey ba ñor ko lool daal di ne ndax ak màggal gi loolu ma yërëm leen ma leen ko wax fa xam naa ne ngeen dara xajatul ti yéen moo tax ma yërëm leen ba jamono jooju dalu ma leen koy wax fa saasa ndax bu njëkk ba ma ko jikkee wax damaa daal di taal sama oto ba topp la ba fekk la sa lii nag dama leen a yërëmoon xam ne fees ngeen del dara mënta dool ko ci ngeen te bu ma leen ko waxee dana xaw dana gën dana gën metti na gën a diis moo tax démb seex mi kañ laa la ko wax. barki bi barki bi laa ko wax ah ne ko ah. man kat am naa kii ndax soj bi soj bi soj soj bi waaye dama leen a yërëmoon rek. attan te yëg ne sëriñ bi daal kër gi ñor na ko lool waaw kër gi ñor na ko lool. yi ngeen bëgg bëgg ko àggale loolu moom mën na ne yàkkamti na ko lool loolu nag yéen a dafa gis seen li ngeen weesu rek xam fi ngeen toll rek moo tax mu jàpp ne lu mu bëgg rek mën ngeen ko kon nag mu ngoog yéen bokki taalibe yi ñi féetee seen bopp Matlabul Fawzayni moo xam ci dëkk bi lañ bokk moo xam ci réew bi lañ bokk moo xam ci bitim réew lañ bokk dégg ngeen ko noonu Euh, dëgg la moom li ñuy wax euh, moom mën na mënees leen a soññ sax waaye mënees na leen a kañ ndegam sëñ bi laay kañ kon ase sa mbokkum taalibe bi te sëñ bi dafa ko ne dama lay kañ yow dëddu nga àdduna dëgmal nga sa borom loolu daj tëj na lépp noonu loolu it noonu dana war a def noonu rek topp ci moom nag. adduna moom amul solo kenn ku ci la nga ci am suñu borom noppi na ca dara mu dox sa diggante moom bu dee wërsëg bu dee daraja bu dee bu dee lu mën a doon suñu borom noppi na ca dara mu dox sa diggante moom li am solo rek li am solo rek moo di moo di yàlla yàlla rek a mat a wut li ci moo nu ameel كان كل اللي جالس يشيك فوق انك انا فاكر مو ما جبت تعالى دي دي دي تال دي تال ابن بتلتو يلا تلتو على الاخره من نانيك درجبكو لا تعب سلوك اللي تقولون كي قلنا ننفق سن بوم نفي نتشنون سن تير ابن مو نكو يرى لا تعمو سلوك كي نبني تال ابن تال يلا تال على الاخره تتخجدك دون يقل درجبكو am na lu ma dul si gis waaye doon ko nettali sëñ bi sëñ bi waxoon waaye lay maanaam moo di bàyyi sa bopp ak yàlla du wàññi kenn dara te doon naa ci loolu sëñ Tuubaa sa bopp ak yàlla kenn dara te naa ci seere maanaam ba lu mooy loolu doy dug doomu aadama nag moo ñu jàpp ku jóg rek defe ne lekk naan rek moo nga war a su mbubb moo sol dañ jigéen coo denc kër ko kër kër kër kër kër kër kër ak bànneex bànneex noon yi noon yi yéen yi noon yi dëkk ak ñun ñeent lañu bakkan bi dëkk ñun sunu noonu la ci la yàlla lu neex rek la lay xiir lu parce que bakkan rek la lay xiir bànneex mooy benn noon bi ñu dëkk ak ñun adduna mooy benn noon bi ci des dugg adduna rek da ngay defe ne adduna rek fi ne ngay nekku fi ba tax sax suñ borom dëgg la moo ko def ci coobareem waaye la war a yëfër yi tëluñu yàlla tëluñu yàlla xam jéemuñu koo xam sax adduna rek la kon adduna musiba la mooy gàllankoor bu rëy bi mooy mooy mooy moo bokk ci noon yi ñeenti noon yi seytaane doo la ñëw seytaane li muy am am am kattan bëgg lépp ñu ngi ci li mu bëgg lépp maanaam noo ngi ci kon noppal yooyu noppal nañ seytaane sunuy noonu lañ yu bon yoo xam ne noppal nañ seytaane kii yées ci ci ci ci ci mbindéef yi da jël yàq gi nan góorgóorlu bu baax xam li xew nan xam li xew nag ñàkk xam rek fi nekk waaye ku xam jóg ku xam fëx fafirroo ilallah inni lakum minhu nadirun mubin loolu la suñu borom wax lu fexe leen jëm ci yàlla maa man kan maa leen war a xub maay seen xubkat bu mag bi te bu xubkat bu wér laa wala ko wax te loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg li ci des la lu ca bari ak neen la maanaam maanaam maanaam lu mu lu leneen lu jëmul ci yàlla neen ngay jàmm ja neen nga mooy jàmm ña da ci lépp xisaab daan buggal ñaan si yàlla musal barki sëñ Tuubaa sant bu baax ñu suñu borom booleeg sëriñ bi sant bu baax sëriñ bi ñu ko war lépp def na ko digg ma borom digg ma jàmm ñi waaye war a xam suñu bopp ñun ñoo ñam ñii war nañu xam suñu bopp bu baax nu mu xamee suñu bopp dana néew ay dana néew ay naaw la ci islaam waaw loolu rek jërëjëf kon mbokk yi ñoo maase teewlu déglu sëriñ mun Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir xamle na yeete na soññee na xam na ñoo tem li nga xam si moo ñu war sunu digganteek sëriñ bi ak ndénkaanib sëriñ bi. kon mboolem koo xamee ni si bëgg ngaa liggéeyal Serigne Touba moo xam nga bokk ci daayira Matlabul ni wala bokkoo ci ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew képp koo xamee ni si bëgg nga am ak pay ëllëg ci li Serigne Touba di fay ñi koy liggéeyal tabaarakallahu ab buntu ma ngi nii boo xamee ni si mën nañ cee liggéeyal Serigne Touba Serigne Modou Aminta Fall la mu daan wax bokk na ci taxaraw sag maas fépp foo fekk jaajëf jël ci sa wàll te liggéeyal Serigne Touba kenn du ci seetaan da ciy bokk kon ndigal laa ngi noonu murit ndigal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu